Kazarika. Ja, Yeah. Humzo, artist producteur From Kaza Record, Ayatollah on the beat. Tough connection. Enough, enough. Waria. almambe takalamu. Waria. almambe takalamu. Yes. iya guet bigar. Tay may wax, xalatam doon kasom, anum wax. mbaadu waxi dof réew mi loof dëkkee tolof tolof gis-gis yi ute ba ku nekk néega jël sa moroom rey ko tàggatee àdduna du jox ñi dëkkee xoox yaay jur doom talul yar doom bi moom ngir xaalis ñàkk jigul góor ñàkk jigul góor gore bade gore bade donte den may re wotoge tegulo togulo njabatu sawbi di joy woy yaay woy baay woy yaay woy baay ñàkk jigul góor nyak jigul góor jengu sa life jengu sa life góor yàlla dina musa baax never mind never mind jengu alive, life alive, sa life góor yàlla dina musa riiru ñàkk jolli na wa mën na xiif ak rafle mab na këru teraanga ya sag na sagum ña tane sellukaay bi moo ñu ëlëm ñu ñëpp ñu ànd gëlëm ndaw ñaa nga tuggal ci jënd ak jaay ñoom ñëpp daw nanu gàddaay xoslumaan jin bu oos yaa ngi rêve nekk boos li la sant job bu dof yaa xof yow mbiri xoslu yàgg si bu oos da nga war a bàyyi am jënd ko drogue wala nga naan ko sàngara da nga war xoslu bol sa ñàq dagi loos bi poos mën a doon flouze mën àllu ëllëg xoslumaan li la sant mooy nga job jëngu sa life jëngu sa life góor yàlla dina mos a never mind never mind jëngu sa life James alive, góor yàlla dina mës a baax yaa Paar yaa ma mbete, paar yaa ma ndi Paar yaa ma mbete, paar yaa Banna yaa arakake Goy banna yaa arakake Wantoy Almambe tankala foari kesoma Almambe tankala foari yama Ni menge fenti fenti di mon me mon ta fenti Ni menge fenti fenti di mon me mon ta fenti Ni almambe wo wama fanya fanya mbana fanya fanya mbana fa Jeng is alive, Jeng is alive Go real, dina musa baax Never mind, never mind Jeng is alive, Jeng is alive Go real, dina musa